kon euh, salaamaaleykum euh, dañu bëggoon def waxtaan bu am solo balaa ñuy démarrer caravane bi parce que tey dañu am caravane bu spécial parce que dañu am ay kilifa yoo xam ne dañu nar a ànd ak nun ci caravane bi te loolu dafa am solo kuy ut politique doo kenn boo amee nag mbooloo mu ñëw bëgg ànd ak yow day gën a neex on a le plaisir le plaisir de présenter au département de Thiès des alliés de taille qui dit tout docteur suis le docteur Geringom. docteur Geringom, c'est le directeur des programmes des directeur des études universitaires IFR Sciences bambay mu donne un cadre boo xam tey jii mu décider né mom fi réew mi jëm xamuko day ñëw and ak ñun ci liggéey bi kon amna solo ñu présenter ko wa département bi benen bi nak muy sunu mbokki PDS yi xam ngeen né PDS parti bleu bo xamné parti bu am am solo la ñom dañoo décider section bi toute la section dañu duggal information bi ci sen section

rakam nekk secrétaire général bi muy El Hadj kon PDS a ngi nii ñoom décidé nañu ànd ak nun ñu doon benn def campagne bu am solo gagné élection yi plus de 70 pour cent kon nag loolu laa bëgg na wax ki nga xamante ne nag mooy le.

parce que comme nous ngeen ko xamee suñu parti direction bi joxeegul consigne ne de voter ou wala fille. mais au niveau local nous avons jël responsabilité parce que le temps presse une semaine de campagne moo ci des nous avons nous àndoon ci élection législative yi ànd ba rafet kon situation depuis hier 15 bi situation bi leeree ñu ne nag kon ñun responsabilité ñu information bi ci groupe mais à l'unanimité comme ni ko Fallou nous ñi à yëpp nee que nous ngeen def rafet na à 100 peut-être que nous nag peut-être des brebis qui xam ne xëy na la je sais que la majorité nous nañu fait ànd ak ci pour que demain aussi si nous gagnons, suñu parti dina ci profiter pour que nous puissions a soxaliwaat PDS pour nous jëm parce que la vie ne s'arrête pas au soir du 24 la vie continue au-delà du 24 kon daal xamal leen ñu ngi fi seen gannaaw ñu ngi seen wet ñu ngi seen kanam lépp lu ñu def ñoo ngi si biir te lépp lu ñu mën en terme de moyen en terme de physique ak lépp dinañ ko ci jéem pour que euh, au soir du 24 euh, victoire bi fêtée avec euh, Diomaye et Pastef pour la victoire finale. asalaamaaleykum wa Touba Toul ñu ngi leen di ziar di leen remercier ci accueil bi naaj bi tàng na kàddu yi dañ koy tënk parce que le bi est ngi ñuy xaar di leen wax rek ne man de coalition donc je dama représenter le département au nom de notre frère Adama Traoré euh, Diawara qui a été convoqué d'urgence à Dakar voilà ànd Tchèque, euh, <laughs> Ndiaye voilà donc euh, et notre frère qui docteur Sarr voilà qui est président du mouvement And voilà donc euh, kaddu yi day gàtt di remercier nag euh, ana frère euh, Diéry Ngom voilà docteur docteur ñu ñu ngi Mingi Dor officialiser dugam mais man maa mom communiqué. dañuy communiquer ça fait plus de deux mois Mingi ngi ci bi surtout Mingi ngi ci bi euh, euh, euh, comment dirais-je, sur les plateformes, avec des milliers de jeunes. Donc aujourd'hui, officialiser Niaou, rejoindre la, la coalition Diomaye, on ne peut que s'en féliciter. Bienvenue docteur, on continue le travail et, on achève ces gens-là di remercier aussi ana Ndiayeen bi <laughs> waaw euh, euh, grand Mbaye Ndiaye yow moom non après ñu gissante ban man am naa nu may defanteeg yow di len remercier vraiment parce que euh, aujourd'hui cette coalition moi je l'appelle la coalition de la vérité gaañi wax ji benn la coow li coow li Sonko ko sama gaañi asalaamaaleykum waa kër Yoro Sofi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di rafetlu euh, accueil bi ngeen ñu defal ah, léegi nag bi mooy euh, euh, caravane départementale coalition Diomaye 2024 danoo def danoo tey danoo bëgg def benn tournée ci zone yëpp moo tax da danoo jaar kër Yoro Sofi ah bëgg na saafante ak yéen wax leen tuuti ci projet bi nga xam ne tey ah, fukki at a nii ñu koy xeex teg ko ci pour bëgg am changer réew mi léegi nag pour ñu bay pour ñu bañ a guddal danoo bëggan rek ci dëkk bi benn jigéen ak benn góor suñ jëlee seen kàddu ba pare après ñu dalal ñu jox kàddu gi kii nga xam ni mooy Sogui Sy moom moo jiite euh, caravane bi moom moo nekk coordonnateur départemental bi. salaamaaleykum Pastef bu Keur Yoros fi ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay. Ah, di dalal gan ñi fi teew ah, di sant ala di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ah, di bëgg a fas yéene rek maanaam suñu bureau bii nga xamante ni mooy kër Yorou fii Pastef gagné ko cent Wow. cent loolu lañu fas yéene waaw xëy na li metti ci dekk bi lepp tay ji mënuñu fee taxaw di wax waaye xaj na suñ coalition bis bu nu yàlla mayee ndam ñu falu euh, le vingt quatre mars deux mille vingt quatre président Diomaye Diomaye Faye premier tour incha allahu rabbi li ñu naqari lépp yàlla mën naa dogal nañ ko faj ah bala ñu mën a wax dara nag bu soobee yàlla dañuy bàyyi ba falu ñaan yàlla suñ borom mii fale may ñu ndam ñu falu premier tour bu boobaa suñ dajewaatee fii. dinañ leen wax projet yi nga xamanteni ni dëkk bi seeni i dëkk bi ak ñom yoyu am nañ ko lo xamanteni war nañ ko jallale pour ñu jàppale ñu ci bu boba lañ ko wax bis bu ñu yalla may ndam waye fi ci Kër fi mom am nañ pësteef boo xamante ni bu soobe yalla am nañ ci yaakar ni fi mom na. alaykum mbokk dëkk bi mbokk ndoy ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ñaanal sunu kilifa yi tok suñuy grand frère ak suñuy petit frère ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yalla jamm di ñaanal yalla président mak euh, Sonko yalla nako yalla may jamm te yokku ko jamm fe mu genn yalla bu fa awati sax ba fay dugga gis nga ñun carrière Yoro Sofi dañoo yag bëgg Sonko barke yenente bi dëkk bëf xam nañ ko gis nga borom kër gi dana man Sonko bu nekkon ci bu tëddee fa mu tëdd dama koy voté xana ko lolay bëgg te lolum wax dëkk bëpp ko wax parce que Sonko yërëm nañ ko maanaam bëgg bëggee gi dafa yërmande gi dafa dem ba jur mbëggeel parce que dañ koo yërëm ndax doom la te doomu jàmbur la te ndey kuy ndey te gis ne Sonko daj boo goree te muy xeexal war ngaa mën a dimbali Sonko jàppale ko te yàlla rek tax ba ku mu bëgg nga bëgg ko ku mu jàpp nga jàpp ko. bi ñu bañ fee nekk nag dafa am loo xam dañu ko tàmmal te dafa war a jeex senegal mooy politiciens yi dañoo yàgg a nax dañuy ñëw ñu fay leen ay impôt ñu jënd ca boutique ba ñu dagg ca di ko di ko dajaleel ba mu nekk ay milliards. boo élection jotee ñu tuddee ko fond de campagne su lu ñëwee ci dëkk bi duñ fi ñëw naaju tàng comme ñun heure bi ñuy dox dañuy bàyyi ba 6 heures jot kër gi sedd ñu daal di ñëw daan ne ana mbootaayu jigéen ñu ni ñu ngi nii ana ana xale ñu ni ñu ngi nii ana paa yi nekk ci jàkka ji ñu ni ñu ngi nii ñu yëkkate xaalisu askan wi nga xam ne moom la ñu war na tabaxe fii hôpital tey wala dispensaire wala ñu fexe mu am ndox ak courant bu doy wala ñu fexe dund bi wàññeeku ñu jël xaalis boobu ñëw jël ci lenn di leen ko jox pour ngeen voté leen bis bu ngeen bis bu leen ko jox nag di ngeen content di ngeen fecc di ngeen tëgg di ngeen way waaye na leen wóor seen xaalis lañ leen jox bu ngeen leen voté lee ça veut dire que donc yéen danoo jënd seen i carte moo tax bu ngeen leen voté lee bu leen wonee ginnaaw par nañ ci yéen dootuñ ñëw ci dëkk bi dootu leen gis lu leen wax duñ ko def ñun nag Pastef ñu ñëw pour defar Sénégal ta Sénégal buñ ko bëggee defar il faut que ñu defar ko ci dëgg waxante dëgg. ñi ngi lay jaajëfal kàddu yi rafet na te yaakaar naa li fi wax moom loolu la Pastef jóg pour def ko. parce que gis nañ ni daanaka boo xoolee suñu zone yi ñun li nu gën a intéressé mooy bay agriculture élevage ak li nga xam ne tey moom moo jëm ci wàllu courant ak yooyu ak santé waaye bu gisee ni daanaka dëkk yëpp fu ñu jaar dara dara amu ci liñ doon def lépp ay promesse la te comme li mu wax nii presque ñi fi nekk 1960 ba léegi ci ay nax lay nekk parce que ku ñëw may la xaalis xamal ne xaalis bi mu lay jox noonu moom da koo lebi ci sa tur ñëwee nag wër di ko séddale

département bi ñëw tey ànd ak le comité électoral de Touba Toul muy Serigne Fallou Faye ak équipe bi mu àndal la ko dalee ca coordonnateur comité électoral bi àgg ci coordonnateur comminal bii di Serigne Fallou Faye ak mbooleem militant sympathisant bu nekk ci coalition Diomaye président fii ci Touba Toul nous ngi la coordination départementale de leen nuyu délégation nous suñu ay alliés muy alliés yu des hommes de valeur ñu mën ci Dr ak euh, Ablaye Sall ak suñu mbokk PDS yi nga tout à l'heure Mbaye Ndiaye également docteur professeur Mbaye Gueye Jéeri Ngom du guddal damay bàyyi suñu coordonnateur nga xam ne tey moo jiite délégation bi mu sànni ci ay kàddu également le docteur Djibril Sall également dina ci sànni ay kàddu bu ñu paree jox Fallou fay moom mi nga xam ne nag moo ñu gën a zone am mu xool kan lay jox kàddu gi mu woo jeunes woo jigéen ñi wax ak kilifa yi sensibiliser ñi nga xam ni ñooy électorat bi nga xam ni waxtu yu tembe liy farata mooy jëli carte électeur électeurs yi liy farata mooy nañu jëli suñuy carte daas fanaanal le 24 incha allah ñu teel a jóg ñu teel a voté ñu teel a jubilé dem ci leneen. di mottali rek ndax euh, vraiment sama coordonnateur yi euh, yu am euh, yu am xalaat yi wax nañu lépp soxna Mariama ak le président Sogui.

espace bu ndaw ngeen leen di may ñu voté comme ça ngeen gagné à 80 pour cent comme ni ko Ousmane Sonko waxee. jëli leen seen carte comme ni ko président Sogi waxee carte yaa ngi fi di nelaw jëli leen seen carte loolu mooy tax ñu gagné gis nga ñii buñ ñu gagné rek jaratul sax ñuy nekk Sénégal bi boo ñu génn réew mi dem. bii mooy sunu sànni tàccoo Sonko mooy sunu dernier chance ak Jomaay ndax Sonko mooy Jomaay donc élection yi na leen jaral lu nekk na leen ngeen tek ci seen bakkan pour que coalition bi meuna gagner pour que Sénégal meuna teggu ci ray ba abadan jere ngeen jëf gaay wal Sénégal d'accord ngeen ni Sonko mooy Euh, Sylla ñu ngi lay ziar bu baax a baax. di la ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi lool may la wér may la kàttan ba li nga xam ne moom nga fi wuutoo say wayjur nga yàgg fi lool di ko di ko joxe. di la ndokkeel tamit ci weeru we tedd yi nga xam ne moom lañ nekk muy weeru Ramadan di la wax ne comme niñ ko waxee rek ñun ñoo fi ñooy ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekkal président Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye fay ñu jëm nag ci tànn njiitum réew euh, tànn njiitum réew lu ama am solo la ci réew mi ni muy doxee ba ci diine ji ñuy dund sax daf ci am solo parce que ki nga xam ne euh, lépp lu la yilif ci wàllu loi ñoom ci ñoom lay jóge ni réew mi demee seeraay réew mi gi yëpp ci moo ñoom lay demee boo koy tànn war nga ko tànn ci ay ay critères yu am a am solo damay wax ne bokk na ci yooyu mooy ak njub ak njub mooy lu nga xam ne bu ko nit amee rek nit ñi mën koo bàyyi xel bi ci des mooy lan la dénk nga mën ko lool te loolu yëpp dafa daje ci kii ñuy wax Bassirou Diomaye Faye parce que suñu tànneef bu njëkk moo nekkoon président Ousmane Sonko mooy ku nga xam ne moom mu jiitee suñu parti ñu ànd ak moom boobook léegi mu ne mu ne fukki at ak juróom liggéey naa ko te mosumaa jël fukki dërëm bu nga xam ne moom mu ma ko kooku nag bu ko nit waxee nit ñi dañu mën a xel xel daal te ba mu ko waxee léegi kenn teggiwu ko euh, moom ci boppam mu dellu gannaaw daan ne diw de tànn naa ko te kooku ma tànn jàpp naa ne su ma gënul su su ma gënul jub man gënuma koo jub mm-hmm. lañ ko waxal moom ñëpp seddal ko moom mu seedee ko seedeel ko kooku mm-hmm. kooku nag lañ ñu taxaw ñun ñëpp euh, xam ci moom njub xam te moom njullite xam ti moom également liggéey bi ñu koy sant mu man ko ñu ñaan yàlla nga ñaanal ñu ndax kooku mu jiite Sénégal xale la te lañ koy lañ ko sant am nañ yaakaar ci moom ñu ñaanal ko yàlla ndax mu yore mu jël réew mi bu gën jëlee réew ma la ñu bëgg mooy sénégalais yi fu mu mënti nekk lépp luy fam ak xam ak fam fu mu mënti nekk mu jot ci loolu de moom mooy moo ñu tax a jóg loolu mooy suñu tànk ñu lay ñaan nga ñaanal ko bu baax a baax a baax mm. yàlla def loolu mm. wax na si la

Gorni, ñi Magni, ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu préparer wu pour le changement ci le nak dekk la bu nga yaakar amna fi comme niñ ko waxé ñi doon uti ñep dañ daan ñew ci le tay président Ousmane Sonko bu ak basirou jomay bu ñu seen ndaw ñu ñew fi serigne bi ñaanal leen duñ dem am yaakar bu bahabah baax yalla may ñu ñu gagné dès le premier tour mbir mi nak du lenn lu dinañ ñew dagaan leen seen baat ñeneen dinañ ñew waaye xam leen ne benn carte rek moo baax muy carte Bassirou Diomaye Faye carte boobu rek mooy carte bu baax xammee leen carte bi mooy carte bi nga xam ne ki yor sikkim bi mooy carte bi nga xam ne mooy carte bu verte bi mooy ki nga xam ne moom la président Ousmane Sonko tànn ñu ñu gagné dès premier tour Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye so Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye. ñi ngi leen di sant ndax bi ñuy ñëw waxuñu leen carrément ni ah teeluñu leen informé kon suñ ñëwee gis mobilisation bi limi muy wund mooy ci la unte Ousmane Sonko moo ko moom Ousmane Sonko moo ko moom lool il faut leer waaw ndax ñun ñi nekkan ci dëkk bi xëy na instant bi ñun ñoo nekk tey responsable cellule Pastef ci la unte waye gis na ni dekk bi fep fu nu dugg dañuy wax ni bu fekkee ci la rek man ngeen teud nelaw waaw lay loolu nak dal na suñu xel fi mom bu fekke loolu manam bu jàppan ni bu ci la gagné élection yi bu ci la bu bureau bi buñ ci gagné Ousmane Sonko gagné élection yi man na wax ni Diomaye Faye dugg na palais te élection yi ñëwagul waaw légui nak pour ñu guddal pour ñu baña guddal ndax délégation bi so ba légui ñi ngi wër dañ leen a forcé sax ñu ñëw ci la ndax xam euh, taxawaayu dëkk bi xam njariñu dëkk bi xam ni kuy wut président yi fi jaar yëpp ñëw nañ fii moo tax ñu forcé leen ñu ñëw bi donc bu mu gàttalee bu mu tax kenn jàpp ni danoo fonkul mbooloo mi way danoo yàkkamte wala dara danoo amul temps boo xamante ni xëy na ma nañ ko def ndax ñi ngi wax ni buñ génnee fii danoo bëgg delluwaat ci ci ci ci waar wi léegi nag bala moo euh, guddal maa ngi jox sëriñ laat laati la moom mu am ay kàddu yoo xam ne da koy wax pour dëkk bi. waaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mboolem waa ci la gépp maa ngi nuyu mboolem waa ci la gépp tey siyaara sëriñ Lamp si la mi nga xamante ni moo fi sunu doomu baay di sunu xarit tey nag da ngeen ñëw dëkk boo xamante ni day dëkk bu am valeur si lislaam donde dekk bo xamanteni mbollem ko xamanteni mas nga tok president fi senegal teg sok tank ta ba nga ñewé la la falon moy barké ta barké ba la faloon jugu fi ndax barké du tuxu kon nak am nañu yaakar bu baaxa baax bu election yi wéso bu ñu ba nga xamanteni manam résultat yi lérna na jomay fay ci biir palais bi la jëm ginaaw bu lolu wéso sant nañ yalla bu baaxa baax ndax mbollem dekk bo xamanteni jaar nañu fa ban dikkee danoo fekk manam yalla def xoli Basiru jomay Fay nan xam nak Basiru jomay Fay moy Sonko ta Sonko moy Basiru jomay Fay limay wax nak moy bis bon daya passa biro passa may len ma bon daya ba nga xamanteni manam moy bisu ya ginaaw su kor la nek ku bul Basiru jomay Fay moy ki nga xamanteni ci si candidat yi mel na moom dong moo si kim na leer kenn amu dul Basiru jomay Fay ngir manam sunu wajur jigéen yi ak yu lay wax bu ngeen demé xol leen ba gis ka am si ba ngeen ne ko rooj képp mom ngeen dugal si ambaloo bi wotel ko ndax Bassirou jomay bay mo andi deug Sonko mo andi deug dekk bi nak ñi fi jaar bërna ci ay homme politique waye lu melni mo su fi am ni ngeen genné manam dalal ñu kon wone ngeen ni manam Bassirou jomay bay mo nek ci xol yi Sonko mo nek ci xol yi ñom ñaar ñu andi deug ñu andi deug la ñuy wooteel bu ngeen bëggee jàmm si dëgg bi nan xam ni Bassirou Diomaye Faye moo woon dëgg Sonko mo woon dëgg assalamu alaykum mbolo mi. assalamu alaykum mbolo mi ma ngi leen di nuyu. alaykum salaam yaay boy ma ngi leen di sant di leen gërëm. national. ma ngi leen di machaw di leen wax dal leen jam di leen machlaw ciona bi ndax wor ba ngon ngay dem di dem ba nëgëni ci te lekko nano metti na waaye nag Sonko jar na sama doom ji yar na ko yal na nu yàlla defal ndam te defal na nu ndam ba pare sax dañoo ñëwoon fi mën leen sonko bari góor la ci kaw tali ku bërëg mu dem ku mu dem yal na yàgg ana jigéen yi jàmbaari ci la buubu dama ni xam ngeen ni réew mi ku fal ñoo ko fal ñun jigéen ñi waaye ku ñu bëgg a fooli dañ lay fooli ñun jigéen ñi kon ñun ñoo yore doole ñun jigéen ñi kon nañu fal Bassirou Diomaye Faye ñun jigéen ñi dama ni dama ni nañu teel a voté teel a gagné teel a jubilé teel a voté teel a gagné teel a jubilé carte yi nañu ko dem jëli farata la ndax mooy suñu ngànnaay buñ fi bëggee jëlee saay-saay yi fi ne ak seeni gàngoor kon lu ñu yàkkamti yàkkamti lu ñu jàpp jàpp nañu dem jëli suñu ay carte électeur daaj fanaanal le 24 heures bii fekk na jubilé nañu ba dem reer fal Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko jërë ngeen jëf